sin maa ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin salaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ñu leen di nuyu beneen yoon amaan mbégte dellusiwaat comme ni ñuy baaxoo di ko defee ak yéen samedi bu jot ci waxtu wi yéen a gën a xam bi le programme di Wagan Show di ñëw ci yeen samedi bu jot di leen indi li nga xamante ne mooy lii xew-xew bu jaar ci biir week bi ñu indi leen ko ci wee boo xam ne di ngeen ree waaye di ngeen xamit li nga xam ne mooy xibaar bi fi jaar seen xarit seen soppe xarit ña ngi madam Thiam ngeen jàkkaar lool waaye suma doomu ndey ña ngi baalo biran ñoo mekkee salaamaane biram Thiam kër ma jóg jëm ak ñaaxeer kii nekk ci sama wàllu ah, ah, càmmoñ càmmoñ la de waaw <laughs> mën nañu ñi nga xamante ne ñoom ñooy entire team groupe Wagan Show Mariama madame eh, Diallo eh, Diallo jëri madame Diallo lii la suñu borom dago ba tamit te la série dara maa ngi leen nuyu lu bari waaye du Olimata ah eh, sama sama doom jii di am mbégte ci moom waaye salaam série yaay Fall foo ne ah borom protocole na mu la de xam naa yaa si yoon di ñëw di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk eh, control room waaye duñu fàtte ñu ne editing room ak programme si yëpp di am mbégte ci ñoom di nuyu réew mi waaye di nuyu tamit bu baax a baax njëkkee ci woon moom muy njiitu réew mi président Adama Barrow ak ay soxnaama képp ku ne ci ginnaam di ko jàppale noonu la ñuy jaare rek eh, tërxis dugg ci bureau ki nga xamante ne mooy njiitu këri kiw group di Mohamed Jah di ko ñaanal moom i fan gudd bu ànd ak wér jaboot na loolu yàlla suñu borom oyofal en bu mu ko en ñu nuy soxnaam nuy képp kuy xëy ci biir kiw groupe ñu ngi baalu mbaa yaa ngi am jàmm e nuyu naa leen réew mi nuyu naa leen o nuyu naa leen sama baat bu neexoon ba ma mën a way dinaa tukkal àdduna waaye baat bi neexul àdduna tukki óorul nag <laughs> <laughs> waaye way moom sama xol la ne waaye banuma waaye lay lay la laa nuyu naa réew mi ñi dëkk réew mm-hmm. nuyu naa leen nuyu samay yaay samay papa samay xarit samay doomu ndey samay bàjjan ak samay soppe ok ku ne waagaan soo da nga ne Khady Niang Baalo mhm. ku ne waagaan soo da nga ne Mariama dëgg la Mariama ay borom neema sama xarit bi woy naa la mhm. seri dara maa ngi lay bége sama xarit bey eh, ay Mariama moo ñaare xatu jëkkër ja waaye nag ñaareel xaritu jëkkëram lu mu am moom la koy jox ñaareel yee ko yor li lalla ni ana uli bebe ko koy borom lamin uli kaay ma waxal la say mbaax mm. e waay salaam na mu naala ko koy faal borom la tirikunda salaam sama xarit bi na mu naala waaye ana uli bebe uli borom lamin sama xarit baa ngi noonu kaay ma waxal la say mbaax waaye waagaan soo ngi nii seetaan dangay ngay bég di kontaan kon jàpp naa ne tey fii dina neex dina yëngoo li ka waral mooy yéenay borom nu bëgg leena a bégal te dinañ leen bégal ndax lu ñu def ngeen bég ci waaw dama ni waagaan so moo leen di wettalee ñi nekk Angleterre moo leen di wettalee ñi nekk nag faka ca Amérique ñu mit moo leen di wétale ndax waagaan show da nga ciy gis sa bopp di ci reetaan di wàññi sa stress gis ci sa bopp a tax ku nekk di ko xaar bu samedi jotee ba juróom-ñeenti waxtu jot ñëpp ràcc <coughs> jàkkaarloog seen télé di xaar waagaan show ba xam lu muy indi ku weddi laajal Mariama dañ koy woo naan ko seen show bi neex na laajal Xadi ñu koy woo naan ko sa show bi neex na kon waagaan show mooy show bi rëy kontaan nañ loolu foor na may leen ko loxo waaw fan yi dégg na am na benn studio bu mag bu ubbi pour pour koo xam ne day produire woykat yi ah damay woy de waaw dinaa ko yóbbu ñu produire wallaay ndeysaan dinaa jël Omar Ndiaye mu nekk sa producer Omar Ndiaye man mi waaw borom bisaaw borom rayda ah borom rayda waaw <laughs> baara <laughs> kon bu ko defee rek waaye ñang balaa ngay continuer ñu ngi lay jaal mhm. sunu mbokk mi ñu bokk yàlla def mu wàññeeku fan yi di jaal mboolem koo xam ne rek mbokk nga xam nañ ne wax dëgg yàlla métti na ndax ndaw lu dem dafa métti mm-hmm. bàyyi fi njaboot gu sew waaye nag yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin di la ko jaal di ko jaal mboolem mbokk yi ñoom ami ñang ak ñëpp rek di lan ko jaal rawatina njuufe nag waa nungu kebbeeg waa ñoomi ñëpp rek ñu ngi di wax rek yal na yàlla xaaree ko àjjana su sedd ci kawam saraxam yàgg suñu loxo barke Seydina Mohamed ak mboolem ku ñàkk mboolem ku dem mm-hmm. ñu xam la xamuñu la ñu ngi lay jaal sa mbokk mm-hmm. di leen jaajëfal ñett la ci ñoo xam ne mm-hmm. wax dëgg fa yàlla um, du ñu jàmbur ci man ku mel ni umi bari ñu naan ko umi wilaan dëkk fii ci Bakaw réew mi ñu bari xam nañ ko saxoon lool ci bëgg président sunu former président bi yàlla dogal mu doonoon ku nekk ci biir li waaw alhamdulilah fa def liggéey bu am solo bëgg ma nag te yàlla rekk tax moom it mu wàññeeku lépp nag euh, nekkoon euh, guddik altine ci guddi incha ca la euh, bi passé nii ba ca tegu sunu yaay yaa faa Touré ca Fass Caaxo nga xam ne kenn la moo naan allo Xadi Ñang maa ngi nii toog si suma digg lal bi di la déglu moom it génn àdduna ci talaata ji tombee maa ngi dem numu kebe ci dëji xujja waaw moom it mu génn àdduna ci talaata ji tombee dëju xuja ba ñoom ñëpp ñu rob leen ci benn waxtu moom mu gaañoo Fass Jaaxo kii gaañoo euh, Nungu Kebe euh, kii gaañoo fii ci Bakaw mu doon ñoo ñett ñoo xam ne doon lu may fàtte ki sama àdduna kon ñu leen di ñaana ñoom aji jiitu yal na suñu borom xaar leen ci arjana firdawsi euh, xujja nag demee ndaw demee nag demin bu métti te bette xam naa ne wax dëgg fa yàlla ay mbokkam dinañ ko jooy ba at mi dellu si duñ ko fàtte ndax deegu métti métti ku xew dimaas altine nga feebar ñu yóbbu la loppitaan nga dee ci altine gal dara gën koo métti ñu denc la talaata ñu ngi koy ñaanal yal na suñu borom teg loxoom euh, ci njaboot gi mu fi bàyyi yàlla may xolu muñ borom këram ak képp kuy fameem di ko jaal suñu yaay yaa mu ndaw juuf ndax ki xam ne mooy waajuram jamono jii mu ngi tëdd feebar moom doomam ba ko fi dem yàlla rek ay buur waaw lépp ñu bàyyee ko suñu borom di nuyu nag waa Fass Caaxo ku mel ne yaa seen loom moo ma kool ne ma sa sa sa mère bi dem na yaa faa Touré di ko jaal njaboot gi yëpp te incha allah dinaa ñëw faas bu sobee yàlla kon ñu ngi jàll ñëpp ñiy aji ñu fi jóge yal na suñu borom yërëm leen te xaar leen ci daw si mhm. kon bu loolu weesoo tey lii ñëw ci programme bi dinañ am Moussa Bathily ah waaw ah, bu ñu jógee ci Moussa Bathily dinañ dem ah, seeti ki nga xamante ne ah, moom mooy karati mooy euh, Amath Ba. Amath Ba ah, foo ma foo suñu suñu ministre bi. waaw waaw maa la ko moom day ñëw tey ci show bi bu ñu si jógee nañ dem short ak break ah, short short break dellusiwaat bu ñu dellusiwaatee dina dem seeti maire boos tey lii mooy show bi. macha allah. Hmm. voilà mu ngi noonu kon nag dañ koy jooraat ki ñu ko daan jox rek muy suñu nijaay suñu xarit alaaji maxtaar mu baax mi Matar Fall boroom lamin borom saf-safal borom boroom borom Sénégambia ñu ngi la koy eh, joxaat rek comme ni ñu koy daan defee suñu nijaay nga suñu xarit nga fal nga yaaram loo dund doyul yàlla na sa jàmm yàgg yéene bi nga am ci ñun ak sacrifice bi ngay def yàlla na ko suñu borom fay yàlla gis na lépp yàlla na ko yàlla defal yàlla ko yàlla fay ndeysaan nit ku baax koo xam ni wax dëgg yàlla saay boo gisee ak moom mm-hmm. mu teral la mm-hmm. dangay dem ba di ko daw man mm-hmm. damay dem ba di ko daw dama koy làqatu barke alxuraan te nag bëggul sax ko ko wax. ah yow semaine bu ne mën nga jox ni ki ay 5000 ak 10000 yu dul dakk. Ah, waaw réeru taw 2500 ba kañ. ah waaw moo yee sa wàll la. moo tax yenn saa yi dama koy def nii. Hmm. daay baat ko ba mu xam ne banaa ko. lim jël ci mu doog a récupéré waat woowaat ma lu xew ma ne ko dara danga maa bàyyi danga maa bo danga li ngay def laa mun a continuer. parce que gor laa deret ay dem sama deret. loolu moo tax wax dëgg yàlla mënuñ koo fay dañ koy ñaanal sunu borom rek. loolu am na solo mm-hmm. ah, bu ko defee rek ah, ma nuyu sunu yaay booy ajratu faar saw alkaari ba foofu ca faaraato mm-hmm. taxa ñaat leb rek teg ko ci loxom séddale faaraato ku ko neex na jox di nuyu yaayam ah, a baax ki nga xamante mooy Mariama ak Janki ak papaam ku baax la ku ma bëgg la ndaw la waaye kuy seetaan bi la mm-hmm. maa Jali di nuyu Mbuuba Jali moom fii ci Kanifing ah la waaw di nuyu Masta borom cerek mbuum yi waaye nuyu waale Ami Ñang xam naa ma nga fa toog di seetaan ah di nuyu nag waa Birkama dañu daalale show bu am solo last week di ñaxtu ci kostoroot ak dëkkuwaay baak nekki waay baak doxi ne dëkk baak yoon yaak yooyu waaye jotee naa kool fu ne ba bërki démb rek sama jàll bi di dem nu mu kebe fu ne la ma ni taxawaloo di ma wax eh, lu am solo lañ def ci ci ci yooni Birkama ak yooni kostoroot nee nañ waxuñ rek tilim ba ca biir kaam waaye xet gu boon ga ca marché ba rek kenn mënu koo wax waaye nag dañuy ñaax ki nga xam ne moom la fa euh, moom lañ fa teg moom moo nekkee ci côté boobu mu bàyyi xel côté boobu ndax waa booram ñi ngi ñaxtu bu baax a baax a baax te xam naa di ngeen dégg wat ñaxtu bi kon dañu daw rek njëkk a dem seeti suñu fausse épisode dem seeti ki nga xamante ne moom mooy bacci Bathily ñu dellu si waat Moussa Yali Bathily sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi wuyewoo samari ji tàccu leen bu baax a baax a baax a baax saa yàlla yes salaamaaleykum salaamaaleykum yes salaamaaleykum wo bacili alhamdulillah bacili raar nga de yes dama raar because Gambia fu mu nekk understand ma yow da nga toog rek réer ma rek suñ la gisul rek du la wax waaye suñ la suñ la gisee rek wax wax wax wax moo tax tey dama gën a foog ma wax. kaay ma wala buñ la gisee wax waaye dafay fekk nga def lu ñu wax. buñ la gisee this country is very hard. very very very hard. if you don't know you don't know but I know this country is very hard. I don't understand this kind of country it is. I don't understand this kind of country it is. what's the problem? yes. Mm. it's a hard country I don't know. Gambia buñ la gisee ñu wax buñ la gisul duñ wax. yes waaye buñ la gisee te defoo luñ wax it duñ wax. so that moo tax ma ñëw tey pour wax. Hmm. because suñ la gisee fekk waxuloo dañ la fàtte. waaw ta man bàccali waruma fàtte. léegi tey loo bëgg a wax. today I want to I want to say something. Hmm. very important thing. because Gambia now is very hard. Hmm. everybody know that. you know I'm bàccali. like I have my man dama am suma own suma own elephant suma own party. to aywa dama bëgg a Gambia mu nekk réew bu naat. own party nga waxa. suma own party suma party suma own party. ah ana baro. non léegi léegi ma party mu ngi fi. déet waaye yow gisuma la woon ci boori baro ay ay weer ci ginnaaw. dama dem foofu waaye ñëw naa. dem la rek ñëw. ah da dem ba yegg. yes xamatoo foo jëm mi dellusiwaat fi nga. yes of course no ah, problem. baro is there am here. yes baro is there am here. I'm always here in Gambia. many people know who is Pachili. Yeah. because Pachili dafa jànga dafa am xam-xam dafa wise dafa care dafa dafa clever. Yeah. I was in America since 2020 yow yow yes. yaa def Gambie mu nekk comme Europe. of course. yaa si loolu. laa ñëw pour fàttali gars yi. Ah. I don't forget Gambian people I don't forget you. is me Yadi Bachili everybody know that so I don't eh? forget that what I am totally is my English déet man kay xaw ma my promise mm. I want to fulfill my promise ah. for you guys for you guys because I'm like everybody I was in America since 1921 lan yes dégg of course so I came back to make my country very nice country. Mm. yooyu very comfortable country. very rich country. so why you know you guys don't know that you guys don't want to me, me don't want to uh, give me that chance. What is the problem? yaa ne dañ suñu joxe Gambie nga change ko mu nuroog Europe. kuy kuy dugati Gambie ut visa. within 90 days eh, days. 90 days days. 90 days. yes 90 days. yes déedéet. ninety days ninety almost hundred. ninety days days. waxut years days. I mean that ninety days. it's me. Musa Yali Bakili from America. It's me, Musa Yali Bakili from America. Oh. soo ma nekkee président 90 days dama nekk dama def Gambia comme America. Hmm. yes. three months. 90 days <laughs> soo ngeen bàyyi ma ma nekk suma xam-xam bu bugg a yàqu dama yàqu suma xam-xam bi yëpp dafa yàqu. waaw su yàggee xam-xam yi dafa expire. waaw soo fi yàggee jëfandikoo la xam-xam yi dafa expire. waaw dafa yàqu mu ngi mel ni comme nga denc nga denc sa sa sa sa lifi naka sa lekka. waaw bu yàggee dafa foro. waaw dëgg la yàlla bàcc dafa door di foro. Hmm. because xam-xam bi mu ngi nekk di expire. Hmm. léegi doo yokkati. please use my knowledge please. ah Bacili. bu loolu la dama dama expire. Bacili doo yokk three months génne 90 days bi def ko one year or two years. I nañ fi tiles by tiles. ah who is tiles by man nekkuma ne tiles by tiles man Yali Bacili 90 days three months ma make Gambia mu nekk comme America. kuy dugg Gambia ut visa. ut visa by force. balaa tubaab bi visa naar bi da nga ut visa everybody da nga am visa. yes tourism bi dina des. comme da nga war a ku nekk duga fii da nga war a am visa because ñu suñu bëgg a dem Amérique dañ de ut visa hoslu hoslu ba sona pour nga am visa dem. Dubai waaw waaw wala ay China yooyu. suma yaay bëgg na dem foofu gars yi nekk dama war laaj kayit bu nekk dama laaj kayit bu nekk kayit bu nekk dañ ma ko laaj. even suma licence dama pour suma moto dañ ma ko laaj pour suma yaay mu dem Amérique licence. soo léegi lu tax ñoom ñu war a ñëw fii du am visa man su ma nekkee président ku nekk fu soo ñëw fi da nga am visa because a fekk Gambia meew sax soo ko da nga ubbi nga xeeli meew nga naan. déet sa yaay bu war a dem Amérique. waaw dañ la laaj moo tax kon Gambia nga ñëw war a ñëw fii doo am visa. kon nag du ma uti visa. 90 days. du ma tukki bi 90 days. aw ma oto. yes moo tax ma xam du ma tukki. within 90 moom dafa jë. yes driving license am door a am. yes yaayam a am visa. yes yow ban meew nga de naan. pig da ngaa xeeli sirop bi no within 90 days. pig su amee su ma nekkee président. su ma nekkee président within 90 days soo robino danga ngaa am sa sa robino sa biir nekk soo defee nii rek meewul gën. bacile bacile bacile. soo bëggee ataaya dama de créer loo xam ne ataaya bi daf laa fekk sa biir nekk nga am robino pour. bacile four second last Bathily meew meew Bathily nit ñi nekkuñ di caaxaan te yow da ngaa politique pour ut réew sooy politique pour ut réew passé na foofu da ngaa wax bu ma indi problème non non non non ne moo jaar yoon moo logique loolu moo jaar yoon waaye xam nga ne adduna ba adduna tëj amul kuy dem ubbi robinet meew génn yes bu meew bu sukkur meew boo xam ne dañ ko dafa am sukkur meew boo xam ne dafa am sukkur da naan meew façon meew bu tànga wala bu bu sedda Afrique fii pour ma develop Gambians very easy please give me chance please Gambians give me chance give me chance give me chance I will change this country within 90 days I told you that bilaay walaay talaay sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin <laughs> waaw kay moom li nga def borom américa non xam nga nag man wax dëgg yàlla li mu wax du gan ci man yàgg na koo wax <laughs> Moussa Yali nag man dama foogoon sax nekkatoo fi comme yaa ngi fi nag waaw ba pare jóg di fa gàddan amul problème waaye ñu bëri dañ foogoon ne yaa ngi ci baro parce que am na time boo xam ma déggoon naa ko fa de nañ ratax ratax bi te loolu mënoon nga ñun foogoon nañ ne yaa ngi parce que nag wax dëgg yàlla réew mi da nga bëgg comme ni nga wax waaw war ngaa mën a jàpp ci liggéey bi nag dem ci eh, His Excellency président Adama Barrow ngeen bokk xalaat ngeen toog ngeen waxtaan. Mm. ngeen liggéey réew mi. Mm. waaye daal nañ ma jox réew mi rek ñetti weer ma defar ko rek. ma moom dafa dafa njuub yëf yi wala. nee na daal léegi moom bu ñëpp na ñëpp xam ne moom mooy solution bi. réew mi moom moo ko mën a defar ci ñetti weer léegi li ma mooy moom hmm. jamono ba ma ko fekkee ci côté góor gi waaw dafa njuuj góor gi wala dafa jël hmm. yooni boppam wala noon nee na daf ci doon jàpp rek hmm. léegi jël jëlaat na yoonam waaw jëlaat na waaw ah, noonu la sooy dem di dem ba xamatoo fa jëm da ngay dellu fa am na ci solo ay ca kooku ñu ngi koy waaw rek bu baax a baax Ndaw Sall moom mi di ko jaale Oumy Bari muy Oumy Wilane di ko jaale waa Jobaate Kunda di ko jaale Yacine Fa ak képp ku nekk li waawul xam di ndax moom it liggéey bu am solo doon def ci biir lu alhamdi wax dëgg yàlla di ko jaale sang wilaan baay saane euh, di ko ko jaale ndax doomam ma dem xaritam ma dem taalibeem moo dem wax dëgg fa yàlla yàlla suñu borom yërëm ko te xaari ko ci arjana firdawsi di ko jàll képp koo xam ne rek xam nga ko di njabootam ak famille am yëpp ci bakaw ñu leen koy jàll man xamoon naa ko depuis la Trikunda parce que time bi ñoo jaay foofu laa ko miinewoon musuma ooyee xadi ñang Mm. moom yi rek la may ooy moom yi waaw moom yi rek moom yi borom baax la daal yal na ko yàlla xare a baax a baax ku oyof ku bëgg suñu yaay Fatou nag moom wax daf ma soke waaw wax dëgg yàlla wallaahi naanewu ma ko ndox man daal may xëy di dem nungu kebe rek yaa seen bu lom kool ma ma ne allo mu ne ma sa mère ba dem na ma ne ko kan mu ne ma yaa Fatou Touré mu nii laa ci am man wallaay Azim waaw sooke na ma torop torop ndax daf ma bett ndax koo xam ne bu la déggul woo la wallaay vocalam bu mu ngi sama téléphone waaw waaw seet la yónnee la message dëgg yàlla soo waaw vraiment di nga déglu message mi jógee banjo ba egg base te message bi du jeex lépp ay ñaan kon ñu la koy wallaahi lazim ñaanal yàlla ah, suñu baay Omar Thiam ndax ñoo bokk benn yaay ca neema ñu ngi koy jaale bu baax di ko ñaanal rek di ñaanal mbokkam yëpp di ko ñaanal yàlla xare ko ajana boole waa Fass ak mbokkam yëpp ñi nekk fii am na ku nekk fii doomam la xaw ma tabakoto <laughs> doomam la waaw ñu ko koy jaal moom it di ko jaal mboolem koo xam ne rek xamoon nga ko wala nga dégg ko wala muy mbokkam <laughs> wax dëgg yàlla am nañu ci naqaru xol ndax suñu yaay la suñu <laughs> soppe la wallaahi yàgg na ca Unique FM Capital FM fuñ nekkoon nañu wallaahi lazim kon ñu daw rek dem seeti ki nga xamante ne moom mooy sunu xarit ba di honorable Amat Ba ñu dem seetaan ko te dellu si sin ma xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin kooku mooy kan honorable Amat NKK Ba waaw waaw kooku minister of lands nii la dee pënsëb dugg seen rek. salaamaaleykum wa rahmatulah waaw la jéeri. na ngeen def ñu ngi fi. hadi naka nga def. alhamdulilah naka liggéey bi sant yàlla. mbaa yéen a ci jàmm ñu ngi ci jàmm. alhamdulilah. kilifa nag boo ko woowee ba mu teew. waaw da koo war a may ci cosaanam lu koy neex. Hmm. ndax kam ngeen ñun Paul dafa am lu ñuy woy. la loo xam ne bu ñu ko déggee mooy xam ne dafay nekk ci sa kol. waaw waaw kilifa dañ koy teral. ana riiti gi def. mbaa yéen a ci jàmm ñu ngi fi ana mère alhamdulilah ngi ci jàmm mu ngi ci jàmm bu baax liggéey bi ñu ngi ci kaw namm nañ la alhamdulilah te show bi namm na la ba nit ñi dañ ñu bind ci show bi lu may nammee man nekkuma fi pour show waaw waaw yéen yéen fi nekk pour show show leen te ngeen ma show lu may ndàmmee. show bu la gisoon two weeks ñu ngi bind si suuf ana honorable Amadou. kon daal li may wax nekkul ne suma kela xibaar yi moom moo leen tax a jóg. déedéet li may waxee moo leen dee. waaw waaw comme yow sa show sa bopp. déedéet kay honorable kay kay dañ ko bàyyi dañ koy bàyyi. déedéet man nekkuma fi du show. waaw dëgg la soo déggee show comédie waagaan la ñuy wax. ci TV waaw. Hadi Niang nekk ca man fu ma waxee rek président Barrow moo tax ma wax. wala réew mi walaay dëgg la bu dee loolu la ngeen bàyyi da ngeen di bàyyi soo bi ko. déedéet déedéet yow yow rek soo nga. yow gis nga li may wax ak lan moo nekk soo fii nga taxaw rek soo nga. lan moo nekk soo ci man. waaw comme da ngaa sa xool. dafa am lu ma a dinaa ko wax. waaw wax ko loolu la su man soo la. wala du ma soo di nga ci xam dara. waaw a laa jël. maa dem ba national man réew laa soxla dégg nga li ma lay wax may ma tuuti xalam may ma xalam tuuti jërë ngeen jëf su ma génnee may leen xaalis ah jërë ah ah, ah, ah baax na boo ko indiwul yaa xam yàgg ngeen maa xeex xalam bi ma leen ñaan te dong ngeen bañ yàgg ngeen ma xeex. du loolu de. nga munoon nga maa may tuuti riiti waaye nanguwuloo ko parce que danga may xeex. man kii ma xeex laa yemale. du loolu ma loolu. déglu ma ma bugga mu ne pro computer bi dafa am yenn programme yi fa nekk lan mooy computer man faale wu ma loolu. waaw bu la nekkoon nga invite suma benn suma mbokki Paul mu riiti. waaw yus la de yus ko. waaye xeex maa tax. dàq ko man na bëri na ñoo xam dañ ma bañ. da nga koy dàq te xaw ma luñ ma bañee. waaw yus maa ngi nuyu réew mi. waaw waaw mu ne réew mi. di jéggalu ci coow li. mu ne di jéggalu ci coow li. lii may wax nag. mu ne li muy wax si ni réew mee ko tax a jóg réew mee ko tax a jóg. leneen taxu ne leneen taxu su ma waxee ba pare. mu ne bu waxee bu ngeen ci gisee loo xam ne si man la jëm si. bu ngeen ko gisee loo xam ne si moom la jëm si. bu leen ko déglu. mu ne bu leen ko déglu ndax kenn dofatul. ndax kenn dofatul. bu ma waxee ba pare nag. mu ne bu waxee ba pare. bu fekkee am na tuuti njariñ bu fekkee la muy wax am na njëriñ ci réew mi. nañ ko jëfee. mu ne na ko réew mi jëfee. waaye bu xool ne amata ko wax rek ko duñ ko jëfe duñ ko jëfe loolu fuñ ko teg. wala fuñ ko teg réew mi looloo leen tardeel. réew mi looloo leen tardeel. dangay dégg Hamad wax na rek nga ne Hamad baa ko wax du ma ko jafe. loolu am Amadou wax na rek te Amadou waxut jëmale ci boppam Amadou da nga wax jëmale ci réew mi nga ne du ko defee ndax Amata ko wax. man su may wax sama waxi boppam si nag laay wax wala soo wala meew. mais ba war a wax ci kàddu boppam moom ci ay nagam ak xaram ci lay wax ci géttam. ndax yooyu laa moom moom laa xam mu ne moom ca loolu la moom te ca loolu lañ ko xamee. wala ma wax loo xam ne dafay jëriñ réew mi. mu ne la mu wax loo xam ne luy jëriñ réew mi. kon bu ma waxee lu jëriñ réew mi ne waa réew mi déglu. kon bu ma waxee nag luy jëriñ réew mi ñu war koo déglu. dem naa national assembly. ne dem na ca national assembly. mooy li ma leen li ma leen wax dégg nañ ko. mu ne te moom lam leen wax waa national assembly. man man du ma ko raay raayal. ne moom du raay dégg de. su ma naree raay raayal dégg. ne bu raay dégg de. yàlla moo fi dégg fekk. kon yàlla bu ko fi dégg fekk. te dëgg maa ngi moom ay ànd biir bam mu ne moom na xam ne ne ci dëgg la judd ci la màgg ci la yaru lim am yëpp dëgg ko ko may te dëgg lay ànd ba biir bam bi ma demee National Assembly lan laa leen wax mu ne ba mu demee ca këru dëgg ga di National Assembly lan la leen wax ma ne leen yéen feyaawu leen mu ne yéen tegu leen mbir mi ci yoon lan moo tax mu ne ñu ne ko lu tax nga ne tegoo ma ne leen yéen a ger yéen da ngeen xeexal seen bopp di kaas ba ñun ñëpp ñu kaasal leen ngeen am seen oto bopp oto yu baax oto yu baax te cher yoo xam ne mucc ayib yu mucc ayib am eesi am oto yoo xam ne maa ngi maam joo xam ne mu ne am na oto yoo xam ne ñoom ñoom député yi ñu ngi koy dawal am na maam joo xam ne suñ ko eewoon ci bàmmeel ne ko sa set bi mu ngi war oto buy jar nangam mu ne suñ ko eewoon maam jooje ci biir bàmmeel bi ne ko sa set bi dee ngi dawal oto boo xam ne mu ne suulaat leen mu ne kon suulaat leen loolu mënta nekk loolu mënta ne du dëgg mënu ma am seet buy am oto buy jar two million plus <laughs> maam jooju dina wax ne a ah, loolu du dëgg ndax man mi foogu ma woon ne dina am seet buy dawal oto bu mel noonu kon buñ ne réew mi neexut kon buñ ne réew wala avancé wut wala demul kanam wala eh, yokkuwul wala yokkuwul ñu wax lu ñu neex ñu wax lu ñu neex kon nag buñ taxawee ba ngeen am oto yu baax. mu ne kon nag buñ leen kaasalee ba ngeen am ay waruwaay yu baax. di ci dox seen soxla. di ci dox seeni soxla. di ci doxaale soxla réew mi. di doxaale moraadu réew mi. te looloo tax ñu jox leen ko te looloo tax jox leen ko. nga la gëstu leen eh, eh, teg leen mbir mi ci yoon te ngeen bàyyi xel ñi seen ginaam gëstu leen seef yi. ngeen bàyyi xel seef yi. chef yi dañ leen war a gëstu. ndax chef yi dañ leen war a bàyyi. ñoom it dañ am mission bu ñuy dox ci réew mi. ñoom it dañ am mission am itte bu ñu war a. te mission boobu yàgg naa wax ne oto dina ko dimbale. te mission boobu. sare doxu ko de raay do doxu ko waru waaye koy dox. kon kon ngalla nañ tagaw ci loolu. chef yi am oto am. chef yi dañoo war a am oto. mu ne chef yi dañu war a am oto. deg dina yomba seen liggéey. mu ne ndax loolu dina yomba seen liggéey. loolu la bëggoon a wax tey. mu ne nag loolu la bëggoon a wax. yéen député yi nag. mu ne yéen député yi. lu jëm si ci yéen. mu ne lu jëm si yéen. dafay gaaw rapide. dafa war a gaaw rapide. dafay gaaw. day gaaw da ngeen koy gaawal. mu ne chef boo gis mu ne ci dëkkam ku sàcc sàcc chef dina ñëw taxawu def waram góor goo gis mu nekk ci dëkka mu ne góor goo gis mu ne ci dëkk boo gisee mu respecté loi boo gisee ñu respecté loi chef bi nekk ci tund wi teg teg di taxaw ci yi ñoo taxaw ci loi yi lépp ñu ne chef lépp lu xew ñu ne chef dëkk bi lépp war a am ci tund wi chef war a am ci tund bi chef dina xeex ba tund wi am ko kon yaakaar naa ne chef boobu kon nag chef yooyu mérito na lu ëpp mérito nañ ñu am lu ëpp ëpp oto. nañ jënd oto jox leen. ñu ne nañ utal chef yi oto ñu di ko dawal. bu fekkoon ne saykul la ñuy mu ne bu doon saykul la. chef yi war nañoo am saykul saykul chef yi dañ ko war a am. bu fekkoon ne rayda la. bu dee rayda la. war nañoo am rayda war nañoo am rayda. bu dee moxoñ teeñ la bu moxoñ teeñ la. war na am moxoñteen war nañoo am moxoñteen bu doon bu doon ah, bu doon am xeew-xew yi ñuy wax noonu bu doon xeew-xew yi ñuy wax noonu war ne chef war nañ ko am kon chef yi am loo gis nag war nañoo am lu ne tey bu lakka picc daganoon ma dem ci àll bi indi picc lakkal mu ne bu fekkoon ne lakka picc jox chef yi daganoon na moom mu dem ci àll yi rëbb napp picc lakk ko jox chef yi kon nag nañu bàyyi xel loolu. mu ne kon nañu bàyyi xel seefi. man maa ngi ci seefi de. mu ne moom mu ngi ci seefi. maa ngi ci seefi de. moom mu ngi ci seefi de ku ci nekk maa ngi ci. mu ne ku ci nekk mu ngi ci ku ci nekkul maa ngi ci ku ci nekkul moom mu ngi ci wasalaam. li ma wax dégg nga ko. waaw dégg naa ko bëgguma nettali nag. déedéet kenn du la yóbbu sa wax. bëgguma nettali suma wax kenn du ko wax. xam nga yow nam gi leen nam mooy show bi ngay show. waaw bëgguma suma wax ko koy juutal. kenn du ko juutal. su may wax bëgguma ko ko juutal. waaw yow honorable paa yow honorable foo lakk picc. lakk picc xamuloo lakk picc. yow foo ko xamee. laay lay la lakk picc. Hmm. ak mbool. xam nga mbool. déedéet yow kii lu kaw kaw. yow xamuloo dara dara dara. xamuloo mboxol. déedéet. sin ma nelaw. bu yeewoo xalam yi ji bu yeewoo samar yi ji Ah, waaw <laughs> bari xorom. waaw xam nga moom ndeysaan lii. dafa saf xorom. Eh, bu ko waxee dëgg la. Mm. d' accord man dama ciy d' accord. parce que mm-hmm. nag député yi dañ leen kaasaloon. dëgg taxawu leen bañ am ay oto yu baax. Mm-hmm. léegi seef yi tamit nee na dañ leen war a taxaw bañ am oto yu baax. Mm-hmm. te député yii ñoo ko war a dugal muy loi ñu wate ko ndax bañ soxlaa oto ñëpp a ci taxaw. kon ñoom it bu ñu xool ne rek am nañ seen oto rek def nii seeni i loxo. Ah. nañ jàppale chef yi nekk ci gox goxaan ndax chef yi tam ñu ngi def liggéey bu am solo. Mhm. ndax moom xam na ci dara. Mhm. kon nañ leen fexe utal leen ay waruwaay. ñoom it ñu mën a def seen liggéey ni mu waree. wallaahi nag yaakaar naa lu am solo waaw loolu moom. voilà li ñu teg rek mooy kuy xalam di ci jaayu. barke ba yaay dëgg yàlla ndax li ñu wax nit warta selfish. xam nga mënoon naa am moom it lam mu am rek toog jàpp ñam rek waaye bu kaasee kaasalee keneen bàyyi na leen xel kon ñi nga xam ne ñoo ci war a taxaw taxaw leen ci lam bëgg mu am. waaye nag ah fa gën a dëndam. nee na képp ku doon tappale suuf di dootoo ko defati. Hmm? ah waaw. mooy ministre of land. waaw xam naa loolu kay maa la ko wax. te bari na tappale de. ba ba du jeex. yaa jaaye benn kër juróomi nit. Ah. am fit nag di di yeewoo ci réew mi tiituloo rafuloo boo tëddee nelaw. bilaay boo ne nit nga da ngay nax sa bopp. jënd jël saxaar def yow jël benn kër jaay ko Mariama. jaay ko Xadi jaay ko Lañsin jaay jaay ko Xadi Ñang jaay ko jaay ko Faxa ba pare rek ku ne nga tëdd ci xaalisam ba pare tëdd nelaw ba yandoor te tiito dara jotu la boo dee boo dee nit nga tamit day ah, man sa bopp war na laa doy man jaaxal na ma ndax man damaa xam ne billay tappale benn tendale si rek nelawoo moom ku ko mën. Hmm. waxuma la nag tappale ay junni wala ay millions yu dul jeex. ci kër yii kër kër jaay kër ki jël bu kii sulee bu kële wala nga boole yëpp ne ko fuuf toog nag gën a am fit nag taxaw de mu jëli say say looye taxaw ne da ngay layoo. Ah. ku la yóbbu police nga naan man kenn mënul lu ma dara bàyyi leen seen xel. suuf si suuf suñu borom la daf ñu ko cërale ñu war koy teraangalo ñu war cee teraanga dëkk ci suuf si moo tax mu tàllal suuf si jox ñu ko nag buñ ci mënee dëkk nag ci jàmm salaam moo gën waaye tàllal guñ ko tàllal ak lu mën a xew ku ci ne am na lu ñu la tarangalee taranga jooju nag boo bëggee jaay ngir yàlla yaa moom sa kër fexeel ba am kay wóor jaay ko ko wóor loolu loo ci lekk mu lew la mm-hmm. waaye jël si kër kii jël kayitu këre dem euh, fooj ko jël copie photocopie kële jaxase foog ne loolu moo lay may alal dund bu bon ngay dund dund bu metti dund boo xam ne sawara moo ko gën ndax lu tax mooy boo tëddee doo nelaw boo lekkee du rees sa fit yi taxaw boo heure bu ne yaakaar nga nit mën na laa indil problème loolu ku ciy dund xanaa deel dee gis ko bari na ñun ko def nag réew bari na problème waaye nag kaami wala alaaji man ko waxoon nañu benn baat defaati nga ko waaw nee na ba yéen yow xadi ñaa nga waagaan yéen du ngeen tekki ma ne ko lu tax mu ne comme yéen da ngeen di jaay jub fii réew mi jub doxu fi ku fi jub doo tekki dara ne ko da ah, ngeen mën a tapale da ngeen mën a tapale ngeen da ngeen di jaay jub ñi moo tax seen morom yi romb nañ leen kon de duñ tekki dara duñ tekki dara ci kaw suuf parce que tappale mu munuñ ko. waaw waaw ayca kon ñu dem ak shot bi rek ñu del si waat. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi ji bu yeewoo samar mbokk yi xoolal place bi fii mooy MST building matériel mooy place bi nga xam ne moom li ñëpp di wër place bii boo fi duggee lépp loo soxla ci wàllu building matériel fekk ko ci biir waaw waaw duggal ci biir rek nga xool lépp loo soxla fii la gën a yombee fii la gën a baaxee fii la garanté ci MST building matériel bi nga yegsee la xel yëpp dal MST building matériel nag mi ngi fii ci Mariama Kounda Johnson boo jógee Sukuta trafic lay mel ni kuy dem Tontéwul mu ngi ci sa loxo càmmoñ boo jógee toon table nag balaa nga àgg sukuta trafic light mu ngi ci sa loxo ndeyjoor boo bëggee semaine bu baax duggal fii di ko am am na ñu bale taxaw yu baax te garanti am nañu tamit brosse peinture am nañu ay ceiling fan am nañu JB hand gloves am nañu ay pompe gardine am nañu table line ak sandpaper am nañu flexible pan connector am nañu toilet screw set am nañu stone coated seat am nañu Swedish toilet ak tank am nañu galvanized latte place ban white cement am nañu ay pousse-pousse glace plastique am nañu ay oil paint yu mucc ay am nañu ay padlock am nañu ay silicone metal handle ak ay turel boo bëggee ciment wala corget yu baax rek te garanti fii rek la am ak façon boo ci bëgg am na fii am nañu ay plywood am nañu ay metal rods yu baax te garanti MST building matériel lépp loo soxla ci wàllu tabax fii rek la am daw leen gaaw MST building matériel nag mi ngi fii ci Mariam Tambacounda Johnson boo jógee Sukuta trafic light diñ ci fekk ay xale yu xereñ li nga soxla ñu defal la ko ci price bu yomb lool wooteel ci 33 20 866 wala 536 2351 kon daw leen gaaw place bi ñëpp doon xaar yegg si na MST building matériel mooy place bi nga xam ni mooy jubluwaay bi ci MST building matériel bi nga yegg see rek la xel yi dal lépp luy wàllum tabax ci réew mi yéen ci man takat yéen a ci gën a xereñ ci MST building matériel maa ngi ci yéen kenn du yéen ci réew sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin waaw ñu sant gërëm ñi nga xam ne ñoo indi yëgle yëbaane mhm. nee naa képp kuy jaay xorom xorom sax fii ngay jaar mu jar nga jaay yéen nga jaar fii mu jeex nga looy jaay fii lay jaar mhm. jaar rek ñëpp xam ko ci ci benn one week euh, ci ci ndogal suñu borom kon de la ñëw ci waagaan show ayca comme ni nga ko waxee rek jaa Awel ak seen semaine bu baax bi muy Taiga semaine. Ah, ok forty two point five R mooy qualité bi. Ah, moo fi man amul kenn ku ko am ci réew mi. ndeysaan booy tabax rek bëgg lu dëgër. Mm. <laughs> Taiga semaine ba pare nag gën a yomb saako bi gën a fees. Ah, ba noppi njëg li gën a gën a yomb. te nag fépp foo dem ci Dia Awel place yi Dia Awel yëpp am nañ ko. Mm. biti gi am nañ ko. fépp foo dem fu ñu jaay semaine rek am nañ Taiga semaine. macha allah loolu nag lu am solo la. Mm. te doomi réew mi moo ko moom usine baa ngi fii ci réew mi mm. beneen ba ca topp mooy cette semaine bi moo gën a yomb naka seen eh, eh, essence moo gën a yomb litre boo jënd bokk nga ci ñiy def social di dimbali ni teel a tax wal bee gën essance bee gën kon jaawel gàcc ngàllaama yàlla na sa jàmm yàgg bu doomi réew yëpp meloon ni yow ak ñi mel ni yow hmm. réew mi duñ jàmba dara ndax téeméeri téeméeri nit ñoo nekk ci ronom mu leen di fay par weer comme ni ko Mouhamed ja di defee ay téeméeri nit ñoo nekk seen ginnaaw ñu mel noon na buñ ci bëree hmm. taxawaalu bi jeex baag wee bi jeex leneen ak leneen jeex kon yàlla na yàlla jàppale leen agression bi moom agression bi moom waaw parce que yàmbaaji la tux mi <laughs> mandi mi moo métti <laughs> eh, kalaas faxa gi buñ tuyee buñ tuxee ci kii bi naka lañ koy xet sax lu mu tudd kuus waaw waaw yow xanaa da nga ñam volé. faa mu volé rek ba ñëw di xoolee benn bët. non loolu jar na thirteen million dalasi. <laughs> waaw kon yooyu nañ ci bàyyi xel yow xamu yow fa xam yi ngay tooñ da ngaa war. saa yu te li garaaw nag mooy maag moom ñoo bokk sëriñ. waaw jox ko loxo. sama xarit la papaam sama xaritu papa la ñoo bokk benn sëriñ. waaw da ko war di jox loxo di ko ziar. waaye xamul ne man may kii Muhammadu Rasulullah lañ ko tuddee. man léegi man nan lañ ma tuddee man man luñ ma tuddee. Muhammad léegi waaw lu tax ngay ooyee kii faxa léegi moom lu tax may ooyee waagaan moom waaw yow yaa tuddee sa bopp waagaan dégg a sa xaaf sa weer bi passé moom nga ko jox waaye man la fi fekk salaire bi moom la ko jox. baax na bala oyati ko faxa suba kanam. Mouhamad la tudd rek oyee Mouhamad. faxa lépp lu la musam métti soo ba ngoon xadi ñanga la ko. bi day teguma la ko. teguma la ko te yow fi mu ne nii mi ngi jàkkaarloog man waaye yow lay waxal. mujj booy nan di tega yow. comprendre nga. kii daa gën. yow nan di tega kii daa gën risque. jabar gi day togg añ di ko mu naan daa gën ba pare naan ni yooyu yëpp ne loolu man kii daa gën ba pare naan nii. yow jógal fii yooyu xam nañ ko afa ah, <laughs> ah da ngay wàññi sa baax na doy na. voilà merci. waaw merci merci ñu sant gërëm kay bu ko di sa yëg-yëg yi baax ñu daw dem seeti ñuy dem ma rek ci commentaire yi ba tey ku mel ni ki nga xam ne mooy Mouhamed borom MST building matériel. Mm. moom it dafa wàlli si ci géew bi te ne ma duma leen mës a bàyyi. ndeysaan weer bu dee ma dëbul ko. Eh tegaat ci beneen weer. Eh weer bu jeex maak yéen la. Ah, wàññiwu dara te yéen bokk ci li ngeen di def daf may neex. Eh Ah, yaakaar naa ne nit ku baax la ñu ngi yàgg ñu ngi ah, dem nañ ba këram mhm. jabaram xamanteeg yow mhm. ngeen nekk ay mbokk mu nekk lu am solo MST mhm. kon ñu ngi laa kontaane bu baax a baax ci building matériel bi nga xam ne boo xasee dugg ci place bi loo soxla rek da nga ko fay fekk ci price bu yomb xale yu xereñ ba pare man seen liggéey ba noppi nag di yokk ci xar mi karaw mooy la nga mën a amee foofu mënoo ko am ci benn place dëgg la kon MST Mouhamed maa ngi lay kontaane dafa am na xaritam bu ñuy wax Mouhamed Diawara moom it tamit xaritam la. Mhm. ndeysaan moom it dafay jaay semaine. Mhm. nee na ma moom it dina ñëw dugal loxoom ci li nga xamante ni moom mooy euh, euh, euh, affaire yi waaye moom it tamit ndeysaan ku baax la saay buy seetaan programme dafay méeg soo mu sen ma ko. Mhm. wan ma ne ma mu ngi seetaan. loolu nag li koy waral rek mooy cofeel kon Mohamed Diawara maa ngi laa ak sa waa kër yëpp di leen kontaane kenn du yéen saraxu yi daal kenn du ñu dafa am benn épisode bu ñu fi defoon ana waa kër ga danga fi waroon weq topp ñu bari bari bari ca lañ ko maa am ci ñu bari ñu ma koy yónnee maa ngi leen di nuy mënu maa tudd ñëpp yaa dem mbégte ñëw waaye di nuyu sama yaay Ramou Diouf ca biir Kaama di nuyu jëkkëram uh, borom këram di Pa Dembo ak ki nga xamante ne moom mooy uh, magi këram di aawom di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloo télé bi di ñu seetaan di nuyu waa Prince di nuyu waa nu di nuyu képp koo xam ne foo mënti ne ci àddina boo ko yaa ngi jàkkaarloo QTV di ñu seetaan waaye du ma fàtte mama Ramou Jaay sama yaay ja ca sanca ba borom ataay bi yaay dinaa naan si ataay su may jug fii maa ngi ñëw foofu naan si ataaya uh, kon di am mbégte ci képp koo xam ne rek am na solo démb rek am na ku ma kool hmm. faa Mamour Fana la ma koolee mu ne ma ñun hmm. dañoo bëgg ni ngeen respecté maire bés muy jow every week hmm. ngeen respecté ko Baye Matar Sarr muy ñëw every week wax dëgg yàlla ñun mooy dundal suñu xol wax dëgg yàlla ko ma ne ko loolu du problème wax dëgg allah ko def dina ñëw next week kon incha allah mu ngoog Mouhamed Diouara dafa am ñaari doomam yoo xam ne dañ ñu bëgg lool muy Hadja Koulibaly ak nga xamante ni moom mooy Dia Mahanera Jah Mahaner ak Hadja Kulibari. Mohamed Juwara kontaan nañ ayca. ayca ñu daw dem meer bës dellu sin ma nelaw bu yeewoo xalam yi bu yeewoo samar yi meer bës ñëwal meer bës nu neex lay solo. dikkal. nu ko neex lay ñëwee ñëwal nu ko neex lay doxee dikkal nu ko neex lay ñëwee dikkal nu ko neex lay solo dikkal nu neex lay doxee dikkal nduk suma daale def ma dog ma mu leen daala ngeen awal suma baaraam yaa ngi suma baaraam yaa ngi métti daale dañ ma ko jaay di baara lañ ma ko jaay daale baaxul nekk daale baara baara waa baara di la ma ko jaay benn xale bu góor ne mukk dina ma ko jaay ndeke daale baaxul dafa daan billaay yow daale dafa daan daf ma ko jaay bu seer fi mu nekk nii bii la ma ko jaayee. 750 ah. dollars. daal du jar ay 10000 daal du jar nga naan ma seebin dafa seet. yow daal la boo gis buy jar 7000. 5000 lan maa gis daal la bu jar 10000 ak poosam. xanaa boobu soo soo soo strané war nga ko mën a jaay génne sa xaalis. génne ha boo ko solee da nga koy salaat. ko gisee wan ma maa ngi nuyu réew mi di wax ne tey na dama xala soona because dama tukki woon. waaw foo demoon. Jokaado laa demoon. foo demoon. dama demoon Jokaado. ah lu xewoon kat su dëkk bu neex ñu dama teral ma alaaji ge joobari teg teg tegal ma meew bi. ana sow ma joobari indi waalo indi ma dara saag de laa indi xaw ma sax lan moo si nekk. may ma ba ñëw may leen ma da defal dàkk may ma defal dàkk may sag laa indi sag la indi waale waaw gerte si nekk gerte dafa am ñu ko moom mais kan moo la gerte gerte si yow nga dem ba joka indi wala dara lu gerte joo bari maa ngi nuyu alaaji gay borom kada alaaji karu gis naa gis naa taraanga ji waaw kontaan naa si yow dama demoon kër alaaji karu mm. du nuyu imaam suma xarit yal na ko yàlla bàyyi si kanam njaboot gi alkaali maa ngi koo nuyu di nuyu waa dëkk ba. imaam lu bokk a waagaan imaam bokk a waagaan la de imaam ba papa am la. papa waagaan la waaw papa am la. dem nga nuyu ko boobu lañ ko tuddee di. demoon nga nuyu ko waaw falaa fanaan wax nga ko yow xariti waagaan. waaw falaa fanaan di mm. mu ñaanal ma. waaw maa ngi nuyu ñëpp nag. di nuyu Babacar Darame. Mm. waaw ñoom Modou Jele. maa ngi leen di nuyu suma xarit lañ. di nuyu Ibou Soukey. ana Sow mi Sow bi jeex na di di nuyu Alaaji Mbay di nuyu Manjaay. waaw di nuyu tamit Omar Gueye maa ngi ko nuyu suma xarit Mam Yacine Darame mm. maa ngi ko nuyu borom gerte gu bari maa yóbbante gerte de dina la koy wax naa kon ne ko yónneel Xadija gerte ak tiga dege waaw dama ko war a yónnee waaw Omar Gueye waxal waxal maam yaa sama wax ji dafa bari yaa ngi rosa suma jaaro bi rek maa ngi jégalu maa ngi jégalu tooñ sa jaar yi di wadda ma ku ma tooñ sa jaaru rot maa la ko wax leena nag moo tax ma taxaw fii tey jaari wu ma suma ke suma bagage yaa ngi mooy lan maa ngi nuyu chef Jim Fall eh, kii famous chef Jim Fall ma Jim Fall ma Diop rek waaw di nuyu Alpha Mayram kan waaw kan tukulóor aare la actuel chef ba fa nekk waaw may Aïssa Ilimani Sira Thiam waaw bilaay yow mooy actuel chef <laughs> chef ba fa nekk waaw waaw li ma bëgg a wax nag mooy dama fa jaar wàcci wàcci tali bi dem kër Amadou waaw jógee fa dem kër Raji Këru tali ba baaxut hmm? président Barrow maa dem ruxa boo xam ne yëguñ na am na si dëkk bi ma <coughs> bëggoon nga yëg nga bàyyi leen xel hmm. wax dëgg yàlla kër Amadou Faye hmm. Kuntaya hmm. kër Omar Sène kër Alaaji Këru bantandi wolof dëkk yooyu yëpp xam man naka jekk foofu am yoon waaw bu taw bi ñëwee ndox mi jaar fa gën ko yàq na taliba nag kenn xamul foo jaar maire boss ay dul nga kon nag dama bëgg ñu xam ne yoon bu bon foofu war nañ cee taxaw pour mu am yoon bu baax maa ngi nuyu waa Kuntaya yi di leen ah, mbir ndokkeel waaw ay dul nga de loo uti woon foofu dama dama demoon uti ñaan ñaan si kan. waaw dama dem uti ñaan si dëkk ba. lu tax mi ma ma àndaayoo. waaw su ma demati ñu ànda. may na naa xaar ñu góob. Mm. waaye ma xot xot. ma dégg mu ne ma su gerte ñoree naa dem Medina. waaw maa ngi wax ne. ci eh, eh, ki nga xam ne mooy président Adama Barrow yëgu ko. Mm. woto ma ko ko wax. waaw fu mu gis lu baax dina fa taxaw. yëgu dara président Adama Barrow foofu man maa fa dem. gis na yoon ba mel yoon ba na mel ñaaw na doy na waar bugga naa nga bàyyi leen xel ndax ñu la buggaa fa nekk mm-hmm. dégg naa élection bi passé yaa fa gagné mm-hmm. kon bugga nañ la président Barrow gëstul waa waa Jokaadu mm-hmm. yoon amu fa yoon amu fa de yoon amu fa du ñuy yëg la xew waaw duñ koy yëg kon dama bugga loolu moom mu leer di nuy ceef bu baa di wax ne nag costarul yoon bi tari ko solu bi soo jógee tabo koto maa ko wax last week <laughs> yankuba yankuba daaba lañu waxal yëguloo ko yankuba daaba wax ngeen naa yow maire boos yow photo ba xibaar bi romba la lu ba si xam yow last week ñëw ñëw ko soro dégg naa bir kaama dégg xam nga si biir kaama dañuy wax maasa ba ndox ma waaw waaye dégg naa xet nga kenn mënu koo nokk kenn mënu ta nokk ba yankuba daaba dégg na ko dina ko dégg waaw kay kostaru tam jaar ci mm-hmm. marché kostaru baaxul mu nga xesaw waaw waaw boo demee sa mbalit ma danga ngaa foog ne adduna fii la em amuñ duus yu baax loolu moo xam naa ko hmm. ba pare taliba gën a bon mu ngi mel ni ay bàmmeel yu ñay pax yoo xam ne boo si dugg foog ne dootoo génn tale ko sorut bi tale ko sorut bi tali ko sorut bi yal na yàlla dimbale comme ay bàmmeel yi ñay yow ma ne leen fii yan ñay leen fi suloon ba sulli leen mu def ay kambu nii waaw filig filig waa waaw sama ci sa bàmmeel ñey moo lay daan. fi waaw waaw doy na waar kon loolu laa amoon lu ma wax tey. maa ngi kontaan si réew mi mm. di wax ne nag nawet bi fu mu nekk nii mm. soo demee bi neex na ma bëgg am fulla nag ku leen bay la si wutoon bu mu ñëwee di yey mbooxa wala muy ut mm-hmm. si gerte bañ mm-hmm. leen waaw ku tudda xaddiña ku tuddul si ñaan dugub bañ leen ku leen ñaan gerte bañ leen bam tàngee rek daw yoo xanaa xamoo man doomi àll bi laa ma ne yoo xanaa xamoo man suma maama moom prisi yoo xanaa suma yaay xaddi njaay moom moom Medina Serigne Mass yoo xanaa xamoo ne yaa la dimbali fu ma ci dem am gerte am dugub am ma ñëw may la. waaw baax na na su ngeen ko mayee ñàkk fula ñàkk fayda. bi bay amee bi bay jotee nangu te ñëw bay ba pare nag soo ak meew moom du fay. man damaa dem sax ñu ndaayal ma yow jëla jëla jëla jëla. enul ma ko enul ma ko suba daal la yaa ngi. enul ma ko. ah gerte ak mura gerte mura mura cuura gerte. enal enul ma suma waay la enul ku ko enu kii. indil ma suma baab kii satam suma sant maa ngi laa nuyu suma xarit bi. kan. Ramatoulaye Bousso. dëgg la ko siyaare di ko kontaane. waaw fam bu nekk seen koñ. waaw xale bi maire la tuddee boppam. ndeysaan képp kuy maire boos si dëkk bi rek la. kontaane non jekk na ba xam ne da nga jongama. da ki ma jaay daal suma tànka yaa ngi néewi ki ma ma. hey kan moo ma jaay daala su ma yaa ngi néewi yow daala yi ma jaay soo lekkee xaalis bi safara nga jëm gisaguloo dara sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar yi jiin hee saa yu na mu tëj jotaay bi hmm. mère bës daal yaa bari bës ah yow mère bës bës mi ci sa digg loxo bi la yaa ko téye moo ko téye maire Beuz moo téye réew mi bañ ko bañ nangul ko ko loolu la yàlla dogal réew mi yëpp maire Beuz sama yaaram ju sa biir kaam dégg na maire Beuz dañ koy ooyee waaye ku ma fekk nga tiim sama yaay di ko su ma la tëggee mbéy ci ndox euh, euh, ci poto poto bi nga jëm mama Banjul nag maire moom xam moom su boppam mama Daba Dieng gis nga de déedéet mama Daba Dieng nandi ma bu ma jaxasee mama Daba Dieng waaye yéen kii kenn du moom maman Daba dégg na kii de bési firwaa na mm. ah, la judd. mu ne ma maman Daba je nga sàkku turi mère bës. tuddee ko boppam rey xar ak béy. waaw ngénte boppam waaw. ma Ramou Diouf nag tuddee boppam mère bës dañu di ko oyee. mère bës léegi lan moo tax yow ñu koy oyee ngay kaas yow. déedéet ñi ko koy oyee ñoo ko ko war a. ma maman Ramou Diouf yow foo toj ba war a taxaw di. bañ mère bës ne ko lamb ji laa toj. saa yu lëkkale lamb ji moom yaa ko toj moom. <laughs> ay ba maara mu jóg bëri leket bu war a bëri wala Balla Gaye wala Yékini dootuma am jàmm teg ma rek alors caat ma ne ko naam yow waagaan fu lamb jëlal sama téléphone maa ngi lay koor rek jëloo fa làmb ji toll ma ne ko. fekk leket parewul la ko wax bilaa wallaay talaay kenn du moom. <laughs> kon tey lii ma waroon a jaar ci bi nag dafa demoon neema mm, Lamine. Mm. fekk fa xale bi toog nu mu Eliza Eliza. Ilañ San di ko di ko jéem a jaay dàngam daf ko dóor a dóor a dóor ba di diri ci tali bi. nga ni gannaaw Ilañ San yëpp yàqu. waaw Ilañ euh, San du ko nettali de. du ko nettali ñoom yëg seen programme. moo kan ci bi géej gi. waaw waaw ci géej gi dinaa dem. di nga dem lekk bi. damay dem man ah, dem lekk gaa la waaw man kay lekk kon de bu leen ko yóbbu kii bu yóbbu seen bi lay lekk. lekk gi moom lu ngeen ci bañu bañu ma lekk dana am si trouble. madame eh, madame waxtu bi jeex na. Ah, waaw ah, li moo ñëwoon tey si show ah, gis ngeen tey na sunu sañse bu sa moom saa ko neexee rek lu ko neex def dañ koo bàyyi si sagoom bu sa kenn yaru ko. waaw tey nag fii la génn jël weex bi rek sànni si li def ko bidiw ah, jox ñu nañu sol leen def lu leen neex filfilaale leen maa leen yore kon tey lii la ñaw ah, jox ñu ndombaam bi di 3930776 nee naa leen boo jógee Wellingara balaa nga am Caspo Johnson boo jógee Kostoro rombal Caspo Johnson diggante atelier bi ak pharmacie bi foofu mooy place Boussa Création boo rombee di nga gis boot bi kon Boussa yan sa jàmm yàgg bilaay wax ko yow mi koy wax boo ko waxaatee sax sa jàmm yàgg bilaay wallaay tallaay baax nga am nga itte am nga am nga am nga am nga jot wax dëgg fa yàlla si ñun ndax ñun duñ la woo duñ la laaj yow bu sa di nga ñëw teg nga gis ñàkk ñu di nga ñëw teg boo ñu gisu yónnee ko bu sa kat yow loo bëgg ah bu am na jom am rakke jom am na maame jom moo ah déggu leen a yéen a ba ah non non yàlla na yàlla non non ndax yàlla na baax salaama fi nekkul rek. bu fi salaam nekkoon dootu leen ko defa waaw oui mooy salaam ne tey. <laughs> waaw waaw kon nii la demee daal. nii la def ma nii la def ak waaga. Mhm, waaw Mouhamed Haydara Plaza. day doon ci àllarba gi. waaye de nee na ma danga toog ba ci bisi àllarba bi mu door may oonaa ma su ma jigéen dama fàtte koo la ma waaga waxoon ma ko teel a soxna si am doomu àllarba teel lañ koy tudd. <laughs> ca àllarba ji la ma kii xam nga fa dem. Eh. alaaji Maxtaar moo fa dem. waaw. deme ne ma yow Mouhamed sa bi. day ngénte lu tax gisuma la ma ne ko fu ngénte nga ne mu ne ma Ibo Town. ma ne ko lu xew si àllarba gi dama ah, woo si ma ko lu xew mu ne ma man yëgu ma guddee de programme bi dafa guddee jeex. wallaay mënuma faa àgg. waaye dinaa seeti soxna si. wallaay non dinañ ko seet si incha allah. Mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi lay ndokkeel di ndokkeel soxna si. kon di wax rek euh, Bousso moo fa jaar gis nga ko ñang baalo mm-hmm. Bousso crier <laughs> buñ solo rek gars yi buñ mën a jàkk dañ xam ne bu soo fa jaar waaw moo fa jaar macha allah dafa rafet mm-hmm. weex bi la ñu may laalal ñu tuuti bidiw kër la karo lii lu am solo la aar dafa am solo bu so dafa xam fii wokk mu di ko xasam lu mu la mos a ñawal mu rafet te day yem ci yow nga di ci enjoy sa bopp ba pare nag bokk ci ñi nga xam ne tey dañuy def wholesale képp ku bëgg loo sol mm-hmm. lu mu la bett bett kool ko rek di nga am loo sol du xaftaan du yëre olof mi ngi noonu gis nga ko ah gis <laughs> baa ngi nii yéen ñi nga xam ne ngeen a bëggal seen jëkkër yi mbaa seen jabar yi couple baa ngi nii rafet ba bëgg a dee tey jii mën naa ànd ak Khadija dem fu ñu neex fu ñu dugg mu ñu ne gonga lii dafa rafet 393 0776 rek 393 0776 mu ne ah. mu ne njool ak ndaama gi rek ko yàq kan la waaye kenn ki ki fi moom ki moom bii ndaama la ni moom waaw kooka la noonu kan mooy ki moom bii man hmm. moom it njool la wala ndaama ndaama la wala njool <laughs> kay wax dëgg yàlla boo boo boo ko demee boo ma gisee rek sa xol war naa seet daf ñoo tolloo maa ngi moom a tolloo. dama dama dama rek. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi diin bu yeewoo samar